tey jii ñu ngi Touba liñ fi gis suñu xel dal na dañ fi ñëw ci tuuru président de la République Macky Sall ànd ak le chef d'état le chef euh, le chef euh, le chef d'état-major général des armées le général de corps aérien Birame Diop gis ngeen délégation délégué délégation bu takku la lu ñu fi gis tamit dañ ci kontaan ndax accueil bi ñu fi gis monsieur le maire mu ngi di taxaw monsieur le préfet mu ngi di taxaw gis nañu population yi tamit loolu wane na que liggéey bi nga xam ne armée mu ngi koy def dañ ci kontaan dañ bëgg a féliciter ñi nga xam ne ñoo tabax. ci diir bu gàtt installé hôpital de campagne bi ci ñetti fan lañ ko waroon def mais ak seen expertise ci ñaari fan lañ ko def te hôpital bi hôpital de dernière génération la ndax lu ñu mën a lu ñu fekk ci hôpital de niveau de loolu yëpp mën nañ ko fi fekk te suñ ko évaluer lu tool lu toll un milliard cinq cent millions ci suñu xaalis damay profiter pour féliciter le médecin colonel directeur de la santé militaire di féliciter le médecin colonel bi nga xam ne moom mooy diriger euh, hôpital de campagne bi di féliciter personnel ñi fi nekk lu toll quatre-vingts personnes ci seen engagement ci seen professionnalisme ak seen dévouement pour euh, faj sénégalais yi ñu fi nekk te loolu am na solo loolu te di féliciter tamit les médecins de district ndax liggéey bi ñuy def mën nañu wax sinergie la ndax ñu ngi liggéey fii pour que le centre de Daaru Marnam mu mën a recevoir ñi nga xam ne eh, jot nañ am feebar bu bon bi nga xam ne mooy Covid 19 dañu war a taxaw ndax le président de la am na ay gestes yi nga xam ne wax na ko te dañu war a def geste yooyu ndax experts yi ñoom tamit wax nañ ko ci discipline ci responsabilité dina tax mën nañu aar askan bi. loolu laa leen bëggoon wax di leen féliciter encore une fois di jaajëfal ñi fi nekk di leen wax ni dañ ci am satisfaction bu rëy.